tey am nañu ndaje boo xam ne euh, damay wax ne mooy ndaje bi gën a gën a gën a am solo ci ministère bi ndax partenaire stratégique bi nga xam ne moo gën a rëy au plan institutionnel yéen la bu ma génnee gannaaw cible yi nga xam mooy askan wi nga xam ne ñoom ñooy jote ci wàllu secteur microfinance ak économie sociale et solidaire. association bi ngeen nekk ngeen xam yéenay kuréel bi gën a mag ci fànn boobu bu ñu toogee di waxtaan ak yéen ñu xool yan jafe-jafe ngeen am te gis nañ ne jafe-jafe yi nekk na ci daanaka ñetti fànn yenn yi ci niveau institutionnel bi la yenn yi ci offre de service bi la yenn yi ci taxawaayu secteur bi ngeen nekk par rapport ak économie bi am ci yoo xam ne dafa nekk yoo xam ne ñun ci sunu wàllu bopp dañ cee war a apporter ay réponse yu yu jàmp ndax ci ñun lay aju waaye mu am yoo xam ne ajuwul ci ñun ndax dafay aju ci yeneen acteurs yi wala boog au plan institutionnel day aju ci sunuy kilifa su may wax yeneen acteurs yi lu mel ni taxawaayu BCEAO banque centrale am na ak coppike goo xam ne war na fa am pour ñoom ñu mën a aligner ci ñun politique yi ñu bëgg muy politique de développement à la base loolu jot naa génn te ñun waxuñu ko yéen yéen a ko wax waaye nag yéen en tant que partie prenante ci li may wax écosystème mu microfinance ak économie sociale et solidaire faaw yéen it ngeen am fitu yooyu nga xam seen wàll la ngeen mën koo wax ñi ko war a dégg dégg ko su ko defee fànn googu su ngeen ko jëlee en compte dina dooleel ministère bi ak état du Sénégal ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a am ci le monde financier bi nga xam ne tey dañoo nekk monde bu xaw a am doole donc loolu bokk na ci point yi nga xam ne jot nañ ko wax ci li ñu war a def ci wàllu plaidoyer waaye la aju ñun ci suñu wàll lu demee ni tey leadership bi nga xam ne amoon ngeen ko ci secteur bi en Afrique de l'Ouest te ay poñ yoo xam ne Sénégal da ciy xaw a commencé dellu gannaaw ba tax am yeneen dëkk yu koy bëgg a dab yu mel ni Côte d'Ivoire su ma jëlee lu demee ni fiscalité bi xeet yooyu ñun dinañ ci def li ñuy war ba nga xam ne point position de leadership boobu taxawaay bu kawe boobu ñu fexe ba nga xam ne dara du ko delloo gannaaw kon yooyu mooy poñ yi nga xam ne mën naa ko tënk rek ci li nga xam ne fas yéene nañ koy def. Euh, li jëm ci nag wàllu taux d'intérêt yi lay aju ci ay banque centrale ak yeneen i kuréel loola ñun dinañ fi nekk seen avocat jàppale leen ci waaye la ngeen war a wax it a war a xam fi ngeen ko war a waxee. Euh, su ko defee ñun bu ñu xoolee ñun en tant que institution de l'État lañ ci war a def ñu def ko ci kon yaakaar naa fi ñuy tënke mooy ñu dégg ngeen jottale ñu lii ñu fi jot a def lépp ci benn document technique boo xam ne mooy nekk plan d'action bi ñuy suivre pour lii ñu wax lépp bañ a nekk lu ñuy ranger ci terroir mu mën a nekk loo xam ne dañ koy jëfee